mbokk internet yi nuyuwaat naa leen ne leen dal nag jàmm ginnaaw grève de la faim bi nga xamante ne moom la nekkoon ba mu jural ko ay lorange yu bëri jural yi tamit ay tiitange ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jegeñaaleem ak ay farandooram président Ousmane Sonko dafa daal di jël dogal di di soobuwaat ci beneen grève de la faim bu bees moom nag mu ngi bind xamal ne boo gisee mu jël dogal bi ñu mel dafay ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jigéen yu nga xamante ne ñu ngi leen téye ci prison camp bu Liberté 6 ak yeneen prison yi nekkee ci mim réew dañu daal di jël décision ñoom jigéen ñi def li nga xamante ne moom moo di grève de la faim ay fan a ngi nii moom nag président Ousmane Sonko bind ne dogal bi na ko daal di sumbaar ci grève de la faim dafay ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jigéen yooyu la ngir xeex li nga xamante ne moom moo di téye bu ñu leen téye lu yàgg ci biir kaso bi te ba léegi xamuñu ana fan lañ nar a ak li nga xamante ne moom moo di yoon moom président Ousmane Sonko mu ngi bind itam di xamal ne ñi nga xamante ñoom ñoo di jegeñaale ak ay warandoor ñi nga xamante fii ci mim réew ak nekk ci li nga xamante moom moo di biti réew ngir ñu daal di euh, taxaw temm def li nga xamante ne moom moo di résistance parce que moom ne mu ngi xamal ne du ñu nangu benn li nga xamante ne nguur gi mu ngi koy bëgg a teg ci seen kaw te loolu nag fas yéenuñ ko benn yoon nangu ndaxte moom dafa jàpp ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci nguur gi juróomu weer moo leen dese fii te juróom yooyu ci juróom weer yooyu noonu ñoom nañ nekk di xeex fu mu toll nii te ñoom nag li nga xamante moom moo di xeex bi ñuy woote xeex la bu nga xamante ne bu cinquante la maanaam euh, cinquante ans la nar a diire ndaxte nee na mu ñoom bu ñu jotee ci li nga xamante ne moom moo di nguur gi dañoo fas yéene defar li nga xamante ne moom moo di euh, réew euh, Sénégal loolu waral nag moom président Ousmane Sonko mu ngi xamal ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jegeñaale ak eh, ay farandooram ngir ñu daal ñu mun taxaw eh, temm pour bañ a li nga xamante ne moom moo di nootal bi nga xamante ne jàpp na ne nguur gi mën na ko bëgg noot ba loolu lépp itam fës na ci li nga xamante ne moom moo di jamono ji ñu toll ni mooy xeex bi nga xamante ne moom ak ay avocat am ko mu ñal ci wàllum li nga xamante ne moom moo di justice ndaxte boo leen eh, fëtale ko li nga xamante ne moom moo di dogal bu tukkee ci tribunal grande instance bu Ziguinchor bi nga xamante ne dafa dogal pour ñu daal di dugalaat tuuru président Ousmane Sonko ci liste électorale yi euh, boobu kayit bu nga xamante moom mooy fësal li mel ba léegi euh, ñoom avocat président Ousmane Sonko yi jotaguñ si loolu war itam ke ba ki nga xamante moom moo di mandataire bi nga xamante ne moom la président Ousmane Sonko yebaloon euh, fële ci DGE direction générale des élections mënagul li nga xamante ne moom moo di président Ousmane Sonko mu ngi xamal ne ci li nga xamante ne loolu la bind na grève de la faim bi nga xamante ci moom la soobu mu doon grève de la faim bu bees dafay daal di euh, woy ci li nga xamante ne dafa fas yéene jàppale wala dafa fas yéene ànd ak jigéen ñu nga xamante ne ñoom lañ tee ci biir kaso bi ay weeraa ngi nii ba léegi yoon euh, dogalul ci ñoom wala waxu leen li nga xamante ne euh, foofu la nar a mujjee ak ñoom noonu nag ngeen dogal bi nga xamante ne moom président Ousmane Sonko jël na ko dafay daal di solidariser wu ak jigéen yooyu la ngir xeex li nga xamante ne moom la jàpp ne du yoon du du du dëgg ci tey bu nga xamante ne ñu ngi ci biir kaso bi boobu ak léegi ba léegi xamuñu ana li nga xamante ne loolu lay yoon fas yéene dogal ci ñoom moom nag président Ousmane Sonko comme ni ma ko waxoon sànq léegi nii rek mu ci woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jege jegeñaale ak ay farandooram ngir ñu mun a taxaw tam xeex li nga xamante ne moom mooy moom la jàpp ne nguur gi mu ngi leen ko bëgg a teg te duñu ko nangu euh, benn yoon loolu waral nag muy woote li nga xamante ne moom moo di résistance te muy xamal ne li nga xamante ne moom moo di résistance li nga xamante ne moo di constitution sénégalais moo ko may képp nga xamante ne euh, doom la ci Sénégal boo jàppee ne li nga xamante ne euh, loolu mooy nguur gi dafa la bëgg noot nga xeexee ko maanaam nga daal di résister ci nooteel bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a teg sa kaw loolu waral nag moom muy woote ñi nga xamante ne ñoom ñoo di eh, militant ak jegeñaaleem ñu daal di taxaw tem ngir résister ci li nga xamante ne nguur gi bëgg na leen kaa teg te fas yéene nañu kaa nangu benn yoon loolu waral tamit mu daal di jël dogal bi nga xamante ne eh, moom la jël maanaam daal di suubuwaat ci beneen grève de la faim na moom nag mu ngi xamal nag fi ñu toll nii li nga xamante ne loolu lañ mën a def mooy li nga xamante ne moom moo di grève de la faim bi nga xamante ne moom laa moom la daal di tàmbali fa seen see ànd ak jigéen yooyu nga xamante ñu ngi ñu ngi leen téye fële ci ci euh, prison bu nekkee ci euh, camp pénal bu Liberté 6 ak itam yeneen prison yu nga xamante ñoom ñoo nekkee ci euh, mim donc mbokk yi lii lañ indiloon tey ci li nga xamante moom moo di xibaar mooy li ma waxoon sànq léegi nii jël dogal ngir sóobuwaat ci beneen grève de la faim bu nga xamante ne grève de la faim bu bees la ginnaaw bi nga xamante ne ci la nekkoon te mu juróon ko fii nii ay lorange yu bëree bëri jur itam ay tiitange yu bëri ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jegeñaale ak ay farandoram ndaxte sonnoon na ci eh, ba ñu daal di koy dugal ci li nga xamante ne moom moo di réanimation mbir mi nag nañ ko topp ba xam ana fal la moom président Ousmane Sonko nara mujjee ak jigéen yoonu nga xamante ne daal di décider na ne dina leen accompagner bés ni ki tey ci grève de la faim bi nga xamante ne euh, moom la ñu nekkee wala li nga xamante ne moom moo di yoon dina daal di jëlal jël beneen dogal bu bees jëmalee ko ci jigéen yooyu ñu nga xamante ñu ngi ci grève de la faim loolu yëpp nañ leen ko toppal ba xam mbir mi fan la nar a mujjee ak li nga xamante ne moom moo di grève de la bi nga xamante ne jigéen yooyu ñu nga xamante ñoom ñoo nekkee ci camp pénal liberté 6 ak yeneen prison yi euh, soobu nañ si waaye itam ak nga xamante moom moo di président Ousmane Sonko bi nga xamante ne jël na bés Euh, ni ko tey dogal ne dafay sóobu ci grève de la fin boobu noonu ngir ànd si ak jigéen yu jàmbaar yoonu nga xamante ne ñoom ñu ngi daal di def grève de la faim boobu noonu ngir euh, sàkku ci li nga xamante ne moom moo di yoon mu daal di leen génnee ci li nga xamante ne moom moo di téye bu yàgg bi nga xamante ne ñu leen koy téye ci biir euh, kaso bi mbir mi lañ leen ko toppal ba xam ana fal la ndar mujjee ko ma ni ma ko waxoon sànq waaye fii ba loolu ñu leen di jox di daje ci yeneen jotaay xibaar incha allah